yoon baax boobu la fas yéene teg Sénégal moo tax li may wax am solo parce que ñun rek mënuñu ko mën nañu am gis-gis bi am yéene bi waaye bu askan bi wala li ëpp ci askan wi li ma yàgg a wax une masse critique bu ñu bokkul ak ñun gis-gis boobu te fas yéene ci ànd ak ñun dina jafe moo tax tey dina waxtaan ak yéen ci ñetti tomb waaye yaay booy yaay booy waaw